maanaam moom de dara du ci dëgg moom. Mhm. ni ko gaa yi waxee dara du ci dëgg maanaam jëmmi daara ji. Mhm. bañ ko sànqee yàgg na. Mhm. daara ji kër gi kër sëñ Saaliw la woon. sëñ Saaliw moo sànq daara ji. ki dongo yi newoon ci këram. fekk dafa bëri woon ay dongo yu xeeboon ak. beneen pàcc ba dañuy jàng da wàcc di ñi di ëpp nañ juróom leen téeméer. beneen pàcc bi maanaam dañuy nekk ci biir internat bi féetee. ñooñu dañoo bëgg xale yu tuut ak yu ndondawaan yoo xam ne. Mm-hmm. ñii ci sare di la ñaan nekk. Mm-hmm. ñii dafa xamaalu ci mbedd yi ci foofu na la gars yi newoon ci biir. Mm-hmm. fii nag bi ñu demee ba nga xam ne si ñun jot na. waaye wekk ci bunt ba mag bi dóor ko ci fenêtre bi fenêtre bi daajeeku. lu yëg ci feneen ba ci balcon bi. xale ya bëri fa lool ñu xam ne bu ñu leen jéem a wax dara ñu ko am ñu ubbi bunt yi ñëpp waaye nag ñu naan dafa am ku ci loolu dara ci la kenn loolu wut ci. li ma dégg ñu naan su boolee dañuy lekk jox. Hmm. yow ñaari daara yi ñu tabax xam nga ne ñaari daara yi boo ko xoolee war naa mat un milliard. Hmm. ñun nan lay mën a tabaxee daara yi un milliard ñaari daara yi milliard bu nekk mooy bëgg ko da wuti jox da ko lekk. Hmm. li ma dégg ñu naan nan lay mën la ñuy toog du dëgg juróom benn bana la ñuy toog. añ bi juróom ba ngoon nañu taalaat yeneen juróom benn ban. te lii ma leen di wax ku ko ci wetu mën ngaa na ñoo ñu seen doom yaa ñun nag ki nga xam ne jigéen dañuy jël ay jigéen ñuy togg jigéen ñi togg am na ci mm-hmm. nii la demee kenn faatuwu ci dañ lay wax da dara amu ci boo koy waxee boo ko dëgg mm-hmm. mais mais information boobu fan la war a mën a jógee que atam nit ki balaa joxe information lu toll ni bakkan bu faatu rawatina juróom-ñaari bakkan. waaw xam nga rajo rajo bi ko wax nii rajo bi ko wax ñoom wala bañ leen waxee ñu ñëw ba ci biir daara ji xool ne nangam ak nangam dara du ci dëkk. Mhm. Mhm. ndax bi xew-xew boobu amee woy takk dar yi woor nañ leen ñu mën koo constaté ba mën a seetal ni dara xew fii. maanaam avant avant bi ma séenee booy xam ne daj affaire taxaw ca kaw dama ne bu leen def dara woo leen woo leen takk der ñoo takk der ñu yéex a ñëw. Mhm. gannaaw gi nag ñëw nañ ci biir constaté xool nañ benn xale daal moo ci xaw a gën a am gaañu gaañu ma ko hôpital. gaañu gaañu ma sax garaawul. lii laa ci xam leneen xaw ma ko ci. lan moo ci nekkan taxawaayu population bi baa ñoom itam euh, jàpp nañu ci. askan wi ah, dëkk population xam nga daara ji moom bëri na ay mag ñoo xam ne. Hmm. daa fekk ñu julli ci waaye daara ji li fi nit ci mag ci ay ponk la ëpp nañ juróomi téeméer yoo xam ne ci biir dañ daan nekk waaye nag daa fekk xaaj bi yëpp dañuy julli. Hmm. ay ponk ñoom ay gune lañ ñun bëgg moo tax gars yi mag négocier ñoom rek bàyyi leen ñu dem. Hmm. ku ci la bàyyi ku ci koo xam ne sa baay na la fay la yomb comme yéen nga mm-hmm. euh, léegi lan nga jàpp ni moo waral euh, loolu ndax Daara Cissé yaakaar naa Daara ju nu ràññee la ci Touba yaakaar naa li nga liggéey ci xam-xam diggante Cheikh Mouhamadul Mourtada njabootu ak sëñ Saliou nga xam tey bari na borom xam-xam yoo xamee ni si macha allah euh, waxuñu ko ngir tagg la waaye nag wa maa naa illaa bi maa alim naa sell goo sellal te liggéey ba doomi sëñ Tuubaa yi daan yëkkati seenu njaboot di la jox. lan nga jàpp ni tey moo waral lii. maanaam natt suñu borom moom mën nga ñàkk. léeg-léeg seetaan yi mën nga ñàkk te seetaan day fekk fa mu gën a baaxee moom ñu doon ñu doon xoolal loolu dafay dara. waaw kon jërëjëf bu fekkee am na message boo bëggee a yëkkati rek jëmale ko ci waajur yi donga yi nga xameen ci dégg nañu affaire bi tiit te li ñuy wax dara. am na message nga yëkkati jëmale ko ci ñoom am kan la. te rajo ba ko man nag bu ma wax war naa a yàlla xool te la muy wax. Mhm. tey tooñ rawut maanaam nga ne kër sàngam diw diw diw faat nañ fa te dara amul ci. loolu mhm. tooñ fa la yem. waaw mais mais yéen am ngeen droit de réponse est-ce que euh, contacté ngeen rajo bi ko wax ah. mu ñëw waat ko parce que am ngeen sañ-sañu nag euh, ku jàllale si yéen lu amul ngeen woo ko droit de réponse ngeen leeral. waa léegi dañ ko moom mu ñëw weddiwaat ko boo weddi ñu ñu xam fa ñuy jaar. Mhm. waaw ndax moo waaw baax na. baax na jërëjëf Cissé jërëjëf jërëjëf. man daal dama ko de samay dëkkandoo daal ñoo seen doom ñoo ne woote après ñu ne xale yi fi am na problème ma ànd ak ñoom ñu ngi seet ci loolu ah. a amoo tiitaange ci tëb gi ñu ah, doon tëbëgee. ah tiitaange am naa tiitaange ndax doomu aadama bu ñu waxee ne moom mi ngi daw te xamul lu muy daw. Mm-hmm. te mun daw ba gaañ boppam. mun na daw dal que jotoon nag ñu wax ak xale yi ñu dal te xam ne dañ leen jàngaloo rek waaw loola ni digal ah des na ñi koy jàngal waaye man loolu moom mu jëf lu leer. ok merci. ah waaw comme. da dem bu baax. niñ ko gisee nii rek. waaw. Ah, ah, ah. dégg nañ action yi ni mu demee. Mhm. ñu yëg ko rek. am na suñuy rakk ak suñu dëkkandoo. ñu tàbbi si bi daal ñëw xool. lan ngeen yëg lan lañ leen wax yéen. waaw ñun ñu ko yëgee xam nga kenn la kenn ku ne ni nga koy déggee ndax ñun lan dégg ba mu tax ñoo jógee suñu kër ñëw fii sax am dinawul noonu waaw mais yow la nga dégg quoi yeneen yoo xam ne mooy booy dañoo tëpp dañoo tëpp étage yeeg yooyu ñun dañu dégg ñu ne boo yoo xam ne dañoo dajji ba sonal nañ sëriñ beeg nangam ak nangam. loolu lañ naa sax mais xam nga rek c'est comme dëkkandoo rek. yëkkati ko rek jéem a ñëw soowee comme ñëpp daal. ok baax na jërëjëf ndax doo déggee ci. mais xale yi rek. waaw liñ leen mooy ñu toog di jàng xam ne moom sëriñ bi ñu leen bëggal mooy lu baax rek. ok waaw te man nañ ni suñ saali woo daal. Mhm. waaw loolu rek moo tax ñu ubbi daara ji meeru neneen waaw kay jaajëf bul bul ci xaar nga jóg